décrypter ah les résultat provisoires euh, des élections législatives de dimanche dernier xool ba xam lan lañ ci mën a jàng waaye tamit fan la ñu jëm ak assemblée bi nga xam ne moom la Sénégalais tànn euh, en attendant xëy na conseil constitutionnel euh, officialiser les résultats euh, définitifs mais ni nga ko waxee Pape Makhtar Sànq noonu lañ koy defee naturellement li nga xam ne moom moo xew dakaar tey ak xëy na ci yeneen gox ci Sénégal faw ñu waxtaane ko parce que Dakar tey taw yu méttee métti moo fi moo fi wàcc d'ailleurs sax ñun ñi moyuñu parce que bi bi ñuy defee penco tey ku ko xool xam ne bokkul ak fi ñu daan toog c'est parce que justement ndox mi dafa laal fi nga xam ne fa lañ amoon habitude di ko defee mais Issa lu ñu ci mënti wax tey moo di ne ay dégâts yu bëree bëri ndox mi def na ko ci Dakar tey ba sax wax nañ ne am na ku ci ñàkk ba kanam moom la taw ci diwaanu Ndakaaru ku ñuy wax Sandrine Gomis am lu euh, juddu le vingt ca Thionkesil doon dawal 4-4 euh, bu marque chinoise bi di Wrangler mm-hmm. li nga xam ne rek moom lañ jot ci ay xibaar Euh, xëy na euh, peut-être je chance la wala déet mais dafa am ku nga xam ne mi ngi woon ci oto bu weex bi ci kanam mhm. euh, xam naa ko parce que voilà bokk nañu dëkk déjà mhm. mbir yooyu la ci la tombé ndax moom mi ngi woon ci kanam heureusement rëcc nañ ci mhm. mais moom dafa nekkoon ci biir otoom ginnaaw ba nag ci li nga xam ne moom lañ jot ci ay xibaar yi nga xam la bàyyi woon ci oto bi jotoon naa wàcc oto bi voilà mais bëggul woon mu yàqu bi mu duggaatee nag ca la ndox mu baree bari daal di wal jaar ci biir tunnel bi loolu la nekk euh, tax ba mu ñàkk ba kanam ndax ndox mi sax bu fekkente ne élément yi yemb na dinañ ko mën a gis ndox mi ni mu doon euh, muure oto yi waaye mhm. aussi yeneen quartier yoo xam ne ndox mi jural na leen jafe-jafe mu di ca Wakam mhm. cité avion nga xam ne am na fa kër goo xam ne dafa daal di daanu mhm. euh, mur bi daanu waa kër ga daanaka kër yi kenn xamul fan ngay mën a jaar Pape dund na lu ni mel ndax sànq sànq foofu la fa la xuus voilà ci Mermoz aussi fa la mbir yi xewe woon ak yeneen i koñ mhm. fu ci mel ni Grand Yoff gii nga xam ne soriwuñu dara ndax kër yu ci bëree léegi rek bi ñuy gont ji ñi ngi leen bàyyi ñu nga ci am ndox ginnaaw ba nag ñu gisaat mhm. plan ORSEC boo xam ne def nañ ko mu di plan national d'organisation des secours boo xam ne déclenché nañ ko ni ki tey ji njiitu réew Macky Sall amal ko mhm. ngir rek ñu daal di mën a dimbali askan wi nga xam ne à toutes les personnes touchées par ces euh, euh, intempéries mhm. yu nga xam ne nag euh, jàpp na ne am nay jafe-jafe waaye aussi di présenter ses condoléances famille yi mhm. nga xam ne ñoo ci ñàkk jafe-jafe muy loo xam ne Moustapha duñ ne guléet mhm. waaye Pape Matar wax na ko bëri ay koñ yoo xam ne daanuñu woon fa gis ay inondation mais buñ demee ba di ko gis fu ci mel ni Almadi nga xam ne ndox mi déjà am na benn oto sax da ko doon yóbbu daanaka daanaka. Mhm. loolu nekk na loo xam ne lu yéeme la. alors dinañ ko waxtaanee ah de point par point parce que inondation je crois que waxtaanee nañ ko fii ah sur le même plateau. ça mhm, fait même pas euh, longtemps euh, di interroger wu lan moo waral euh, Dakar di mel ni saa su tawee parce que on parle de cent vingt six. voilà cent vingt six millimètres moo fi daanu. am na ñu ne sax xëy na bariwul contrairement à ce qui se passe dans d' autres pays Alioune Souaré est ce que li nga gis dakaar tey lu la lu la bett la ces images là ay euh, kër yu daanu nit ku ñàkk bakkanam ci corniche bi ndox mi kenn dem ba nit ñi génn seen i kër kenn demul kenn est ce que booy seetaan yi yow mi nga xam ne nekkoon nga assemblée nationale fekke woon nga bi ñuy teg le plan décennal de lutte contre les inondations est ce que image yi dafay nekk yu la bett. boo xoolee de Wade à mais malheureusement souvent da naan est-ce que am nañu ouvrage yu ko attan maa ngi koy wax sànq kenn rek euh, def naa Issa laa ko doon wax ma ne ko mhm. Douala bi Cameroun Douala ci Cameroun waaw mhm. ñoom neuf mois la taw sur douze. sur douze donc rek lañ du lañ doon toog gis ñu voilà hmm. te taw yi fay taw. Hmm. taw yu mag a mag la mais su tawee. Hmm. quarante cinq minutes dootoo gis ci centre ville bi centre ville bi ndox donc. Euh, loolu je crois que nekk na ay manquement yoo xam ne man gëm yaakaar naa ne taxawaay bi moo des. parce que loo xam ne xam nga ko benn yoon. xamaat ko ñaar yoon te ba léegi mënuñu trouver solution bi. Mhm. léeg-léeg ñu ñuy yónni ñu ñuy renvoyer da jëkk nañu peut-être euh, mbiru yàlla la. Mhm. d'accord mbiru yàlla boo gis loxoy boroom a ngi ci. Mhm. moi je pense que ne euh, war nañ ko gën a saytuwaat jël ko à bras le corps. pour essayer de voir comment saafara ko. parce que waratuñu fi toog. di wax waxaat problème inondation wax wax nga lu am euh, lu am solo déjà mooy ouvrage yi nga xam ne moom la ñu prévoir pour pour pour su ndox yi amee yu demee noonu euh, la question qu'on mooy euh, nañ jël exemple corniche bi nan lañ mën a defee corniche bu mel nii ak li ñu fa investir yëpp muy taa ba ba nit di ba nit di ci ñàkk bakkanam absolument mhm. absolument c'est regrettable c'est que moo tax ma ne la mhm. war nañu xoolaat ouvrage yi di ko saytu parce que moi je crois que ne man damay wax naan est service yi nga xam ne ñoo habilité di def contrôle qualité. Mhm. ndax dinañ def seen liggéey. parce que su fekkee dañ la jox marché nga exécuté ko. Mhm. war na am service yu ko war a contrôler. pour wax qualité ouvrage yi ndax baax na. ou bien baaxul absolument bon mais je me pose la question. Mhm. parce que comme du sama domaine. dafay jafe nga wax si <laughs> waaye nag lu ñu mën mooy constater ko. boo aussi tamit regretter. bakken bi si wadd te je crois que c'est pas la bii fi tamit nee nañ am na bakkan bi si waddoon absolument mënuñu chaque fois bu peut-être amee taw yenn yenn quantité d'eau yu wàcc rek ñu ne mm. bakkan wàcc wàcc wàcc na si loolu tamit mm. je crois que war nañ ko xoolaat d'accord xool ñu koy saafara net ñëw léegi surtout euh, xaalis bi nga tudd sànq ne def nañ ko ci sous Wade mais également sous Macky te ba léegi mu mel ne solution amu ci et Eric Ndour image yi nga gis Dakar tey lan la lay renvoyer da ngay jàpp ne ndox mi bari rek wala Euh, comme le di euh, Alioune Souaré dañu nekk réew moo xam ne xëy na ñun ñëpp dañuy interroger wu ci ouvrage yi nga xam ne moom lañuy defar pour wax ne c'est prévu pour euh, jël ndox su amee ci Dakar. merci Moustapha da may permettre également ma ma masawu coono. Mhm. ñi nga xamante ne ni vraiment jot nañu am ay tof tof yu mag ci ci inondation yi aussi présenter mes mes condoléances les plus attristées. famille yi nga xamante ni am nañ seen i seen i mbokk wala seen i doom ñu si ñàkk wàññeeku di wax ne également plan Orsec bu président de la République wax tout à ñun dañ koy rafetlu parce que mm-hmm. je pense que tey euh, compte tenu de l'urgence euh, yoon la woon également mu jël ay mesures pour au moins atténuer un peu souffrance mhm. yi nga xamante ni moom la population dakaroise yi di di dund mhm. donc pour un peu revenir tey sa question euh, son première appréciation mooy déjà quantité de pluie bi dafa bari et je pense que euh, sur Dakar il est très rare 127 millimètres taw ci benn mhm. demi-journée et que là effectivement je pense que gis nañ tey conséquences yi mais man fan la accentuer sama sama intervention rek. Hmm. mooy déjà la bonne intention ak la bonne volonté du gouvernement pour résoudre ces ces problèmes d'inondation. Hmm. aujourd'hui tey booy xool suñu budget bi am na loo xamante ne lu am solo ñoo ngi ko ciy dugal. mais suñu plan décennal bi nga xamante ne nii defoon nañ ko. Hmm. parce que bu boo leen di fàttaliku un peu dañ koy dañ nekk ci ko di ko échelonner. parce c'est pas seulement Dakar qui a été prévu. pour euh, pour wàllu inon pour pour régler un wàllu assainissement muy assainissement évacuation au eaux usées yi wala au pluviales yi mais quand même c'était prévu pour la région de Saint-Louis donc mhm. pour la région de Saint-Louis way pour Mbacké pour la région de Kaolack pour Fatick etc mais tey heureusement euh, malheureusement ou heureusement c'est selon mhm. euh, am na tey loo xamante nii dañ koy constater mooy bu tawee rek Dakar dafay taa peut ñun tey lu ñu war a mën a gën a xool mhm. mooy pourquoi au niveau de plateau par exemple bu tawee. kante mhm. lu mu taw taw taw taw taw boo fa defee une heure deux heures lu ci bëri day dem. ndox que plateau la maintenant nag. Mhm. Mhm. maintenant nag laisse-moi continuer s'il vous plaît. maintenant nag euh, la qualité des ouvrages la la qualité des ouvrages aujourd'hui loo ci mënti dégg. Euh, guvernement bi am na ay ressources conséquentes yoo xamante ne teg na ko pour euh, pour au moins gérer tout ce qui est tout ce qui est canaux de de d'évacuation. Mm -hmm. maintenant il est il, il est c'est c'est un constat qu'on mm -hmm. qu'on et c'est, regrettable mais nous booy xool du Sénégal rek en réalité. Mhm. Euh, booy xool dans les pays les plus développés inondation dafay am. Mhm. et puis. Euh, pourtant Eric Sénégal bokkul ci réew yu dàq taw ci Afrique mi ngi mi ngi cité léegi l' du du Cameroun. Mhm. mën nañu wax sax Côte gi ñu gën a jege. ñooñu dàq taw fuuf et pourtant euh, nii Ndakaaru di mel bu tawee seen capitale duñ ko mel. waaw mais dem Europe sori na en Afrique. Hmm. mais mais moom laay wax. au hmm. moins am na intention ak bonne volonté gouvernement. pour régler ko pour régler ko. Hmm. donc bu ñu amuloon intention wala bonne volonté régler ko. je pense duñ ci injecter autant de milliards pour pouvoir solutionner euh, le problème maintenant nag aussi am na également de facteurs yoo xamante ne dafa ñëw greffé wu. ci ci mbir mi. parce que c'est vrai que am na ay nouveaux quartiers yoo xamante pas ay nouveaux quartiers investissement yoo xamante ne ñoo ngi koy commencer def. peut gas nañ ko. pour au moins alléger un peu mobilité urbaine bi. Mhm. booy xool euh, day am aussi ay ay dégâts yoo xamante am na mhm. ci mhm. Euh, sur. tout le long tey euh, ci ci wàllu Dakar. oui euh, les travaux du PRT les, par exemple exactement. Mm -hmm. donc joué na ci aussi un, un, un rôle important. am na am na koo xam sax day faral di dugg ci wax bi moom boo waxee mu ne daanaka dañoo xaw a mel ni lu yor jikkoy jinax ndax gas nañ fépp ci ndakaaru te liñ gas boo xoolee daaw man je me def naa ci un reportage. ci euh, chance wu BRT yi nga xam ne def nañ ko ci approche nawet. Hmm. nit ñi foogoon ne sax xëy na benn nawet boobu rek lay yam mu ñëwaat ba nawetu ren bi te ba léegi gisaguñ daanaka tali boo xam ne sax. mën nga jàpp fekk na ko ñaari nawet fekk na ko fi mën nga jàpp que ni lii pare na. Euh, hmm. xëy na ay quelques comme rond-point bi nga xam ne defar nañu euh, kii war a téye pont yooyu mais à part gisuñu dara beneen bi topp sànq yaa ngi koy wax nga ni am na yu nga xam ne moo ñëwaat greffé aussi mais am ngeen volonté est-ce que volonté boobu tey ñi ko war a réaliser sur ko réaliser wul wala état bi moo toppul ña ko war a réaliser parce que bu fekkente ne ay euh, réalisation la yoo xam ne dañ koy jël di ko suul ci biir suuf si est du loolu moo tax xëy na mbir yi yomb mooy da ngay jël quelque kii taf yëngal dem sa yoon bu tawee mu taa. bon je pense que ah ah, ah, ah, ah je pense que am na benn moment. Mhm. Euh, le porte-parole du gouvernement génnoon na ne euh, par rapport ak li ñu def. ci Kër Massar. Mhm. ci ci wàllu investissement pour permettre tey ndox mi bu ñëwee du tag mhm. ak zone yi nga xamante ne day permettre mu capter yenn saay ndox mi. waxoon na ne nañ ko saytu. Mhm. xool véritablement en terme de qualité est-ce que cahier de charge bi li nga xamante ne defoon na ko est-ce que répond na euh, euh, ci cahier de charge bi en amont. Mhm. maintenant nag il est comme comme mënu ma ko waxee BRT bi y a plan d'exécution des travaux ki malheureusement. sur un temps tey <coughs> dañ ko xaw a poussaat parce que ñun jàppoon nañ ne heure bi waroon na fekk mu. pare la ñu waxoon ah. euh, loolu la ñu waxoon. voilà heure bi waroon na fekk mu pare. et que sur quelques Euh, tronçon quand même ñun dañuy constater que jàll na. Hmm. parce que booy jël deux voies euh, deux voies yu dem Sacré-Cœur. Hmm. Euh, am na benn partie boo xamante ne pare na. boo demee aussi géej Guédiawaye bi am na benn partie boo Euh, boo boo xamante ne pare mais nag euh, lépp rek dañ koy teg ci cadre boo xamante nii mm-hmm. bu ñu baraloon un peu jéego yi mm-hmm. pour au moins euh, finaliser les les travaux mm-hmm. xëy na également du dégâts collatéraux yu ñu am xëy na dina xaw a amontiri tuuti Mamadou Dieng le problème c'est quoi dañuy dañuy jënd ay milliards def ko fañ ko def defuñu ko fañ ko war a def wala ñin ko jox ñu koy liggéey ñoo deful lañ war a liggéey parce que soirée mi ngi koy wax sànq inondation ba def nañ ci nangam ci milliards mais heure bu tawee on a l'impression que ni ci case départ la ñuy nekk li waa ji waxoon ne Sénégal bala nga xam ne liggéeyuñu rek mu taw heure bu tawee c'est l'impression qu'on a que ni vraiment on est dans un pays sous-développé on incapable évacuer ndox mi nga xam ne moo nekk Ndakaaru merci beaucoup mhm. Moustapha xam nga problème bi dafa bëri facteur mhm. mais facteur principal mhm. pour man di wax ko mooy non seulement xaalis bu ñu jël voté ko ko duggaluñ ko fu ñu ko